bismillahi noo ngi deeti marsiya ci waaju baax ju fonk yoonu tërbiya sëriñ Balla Coro moom la sunu borom tànn moo fi mujj ci njabootu sëriñ Mor Anta soo demee ci marché borom daarul mooti sëñ Moussa Ka ma ngay wax na àllaaxiraay jeexal nga kër maam Balla Cheikh Moustapha amul ko dul Cheikh Balla alaaxira jeexal kër Maam Balla Seex Mustafa amul ku Seex Balla xerawlu leen sëriñ tey way fi yaaram Seex Balla Coro Mbàkke sibtu Balla ak maaram mooy rakki maam Moor Jaara ak maam Seex Anta ba cey rakkam ci doomi maam Moor Anta doon rakki cheikh ahmadou bamba xaadimu rasul bokk na ci màndargam mbaax waaye doon ab taalibeem firnde ju wér juy waral nga bokk ci ñiy feeñal yoonu dëgg wi mu jaaroon te teg ci mboolem mag ñi àndoon ak moom bokk na ci jëmm ji di sëriñ Balla Coro Mbàkke turam dëgg dëgg mooy Xabibulaahi ñu wax ne sëñ Mor Anta da ko woon yeneen doomam ji ñu Xabibulaahi ma nekk Xuru Mbàkke moo doon ci sëñ Mor Anta mu jaam ndax wax nañ ni sëñ Masamba rek xëy na la ci mag Euh, histoire nag bu ñu ko tëgg bu ñu ko bëgg a tënk ci lu gàtt dañuy wax ne sëñ sëñ Balla Coro mi ngi feeña jamono dëkk bu ñuy wax Pataar ginnaaw bi nga xamee ni sëñ Moor ñibbisi na jóge Saalum ànd ak Lat Joor Lat nekk Cilmaxa moom mu dëkk Pataar foofu la ganee jamono. mu mel ne bu ñu bëggee bu ñu dee fàttaliku dañuy dañ naan 1877 la gane àdduna. at moomu sax moom mook ko sëñ Afe Ñang ñu bokk ak sëriñ Fallilu Mbakke wenn waajur ñoo ko bokk en 1877 bu dee sëñ euh, Mouhamadou Lamine Diop Dagana ci Irwaaw Nadim wax na ni ñetti at lañ ca teg waajuram ñibbi àjjana ndax moom mille 1880 la wax bu dee sëriñ euh, Basiiru moom 1881 la wax ñeenti at kon la bi mu feeñee ñeenti at la fi am ak waajuram waaye bu fekkente ni Serigne Moussa Ka la moom ñetti at la wax kon sëriñ Balla Coro def na fi ak waajuram sëriñ bi juróom-benni at bu ñu sukkandikoo ci waxi sëriñ Moussa muy kenn ci njabootuk sëñ Mor Anta Sali bokk itam ci ñi ci gën a néewi at waaye muy ku ràññ ku matawan réew mi rawatina ndaw ñi bisimilahi noo ngi deete marsiya ci waa ju baax ju fonk yoonu tërbiya bokk gi mu bokkoon ak Serigne Touba seen waajur Maam Mor Anta Sali Mbàkke feeñaloon na ci teel ak cofeel akuk mbëggeel digganteem ak Serigne Touba. rakki rëkk ci moom bokk ak Serigne bi lépp nag. ndax suñ delluwaatoon ci histoire ma dem ca seen maam ju mag ja di soxna aram ñang mi nga xam ne mooy ndey maam ma aram ak bërgeel ma fent ñang ak wuri ñang maami coro maaroosa ak amadou maleem ñang mi jur yaat ma ñang ñun mu jur amadou ñang mu jur ma ndumbe mu jur daanu ndumbe mu jur maam astawaalo ak amina ñang ndey xujja mu jur soxna mati ñan mu jur soxna awa buso ndey alhaaji falilu mbàkkem sëñ tuuba ak faali ñan mu jur maram ngàcc mu jur lawbe ture mu jur soxna ab sa mbàkke mu jur soxna fatise way jur maam ceerno ñii ñoo bokk benn baay ñii ma lim kenn ñi te leen jur maam atumaan ña nga leen jur ci ña ngeen nu njébbal kon fañ bokkee sore na lool ñuy dox di dox di dox ba ñëw ci maam Balla Aïssa di dox ba ñëw ci maam Mara Anta Sali lépp suñ Balla Coro bokk ak Serigne soxna Coro Diop dañ koo jox ku ñuy wax ci Yaasin Joor Siga mu am ca Debbo teg ku ñuy wax Lat Seen Lat Seen moo jur mu defaa Lat Seen mi ma jur Lat Seen ba mu jógee foofa ci ciyaasin joor si ga ñu jox ko maam Mor Anta Sali mu taawloo ca Serigne Cheikh Coro ma ca Ndar teg ca moo jur mbusoobe yi teg ci Astu Mbàkke mooy kumbatay ba Mbàkke mu jox ko Serigne moo jur ñi sant ay dara teg ca Balla Coro mooy caat mi noonu la Serigne Balla Coro demee teg ñooñu boo nee Coro Ngóone Kumba Jeng Birima Fatma Ngóone Coro Maaroto Yaande Waagaan Barak Kulimbaba kuñ bokkatu nekkul ci réew mi am na yit it mu bokkal way ci suñ Mor Anta Sali ak soxna Coro ñu koy wax sëriñ Cheikh Coro moom sax kooku tudd tuddaale turu way juram ak soxna Xadijatu Mbakke ak soxna Aysatu Mbakke waaye sëriñ Balla Coro yit am na ñoo xamante ni ñoo ko mag ci njabootu sëñ Mor Anta Sali am na ñoo xamante ni bii moom moo leen mag waaye moom la sunu boroom tànn ngir mu mujj fii ci njabootu Serigne Mor ant sëli am fay li jaasa ngir bëgg a fekki Cheikh Bamba magam fa saasa diggante Mbàkke Kajoor Daaru Salaam Touba amul fenn fu Serigne Touba jaar laata yoonu géej gi te rakkam ji nekku fa ak moom loola feeñ ba ci am njàngam akuk tarbiyaam jaar fi ñi demee ni moom di jaar fépp ci jàngum alquran jàngum xam-xam ak tarbiya gu wóor la cay firnde mooy bokk na ci ñi fekkee sëriñ Serigne Touba gànnaar te it teel a euh, jëfandikoo lool njàngaleem sëriñ bi njàngaleem sëriñ bi bu ko waxee mooy alxuraan Touba fala la àggale am njàngam alxuraan fala la àggale njàngam xam-xamam mbooleem xam-xam yi ñu doon jàng ca jamono jooja maanaam booba la xew mooy nga jàng alxuraan beex ko bind kaamil jàng xam-xam surtout mabaadi ulum islamiyya yi ay fiq ak tasawuf ak tawhiid xeet yu ñu yépp mu jàng ko ci biir daara ji euh, euh, li ci ëpp ci loxol maam Thierno la ko jàngi ak xëy na ñu newoon ci biir daara ji ndax noonu lay demee ci ñuy jàngale. li waroon ci moom. ci teg ko ci aw yoon loolu sëriñ bi toggoon na ko ak bokk yim ko seqaloon maam Thierno Birahim ak sëñ Mor Jaara muy mag njaboot gi loola itam kenn ku ne war na cee jàngee njaboot guñ la bàyyeel noo leen war a taxawoo ndax sëñ Mor day mel ni njabootam ngoo gii nga xamante ne ni seeni at daa néew ak caat mi mu fi fekkul semmal nañ ay taaw. bi am njàngam àggalee nag ci la ko sëriñ bi jëlaate tàmbali ak tarbiyaam ndax boo fekk na yoonu mu murit taxaw na sëriñ bi mbir mi nekkatu ci jàngalee kese waaye am na leen lu ca dolliku te mooy eh, li mu tudde woon tarbiya ci la commencé ak tarbiyaam eh, yàggul dara xew-xew yi commencé eh, maanaam sëriñ bi jóge fa dem Mbàkke Bari bi dem Mbacke Bari euh, mi ngi ànd ak moom ne ci ji ba ni xewe-xew yi xewe euh, sëriñ bi jóge fi dem ndar ne ci wàccaay tukki beeg yooyu yëpp ñoo ànd kon diir fi mu ganee àdduna ba sëriñ bi demee ci tukki bi euh, génn loxo sëriñ bi benn yoon génn loxoy sëriñ bi yoon yoral nu daggana Cheikh Bala leen la taxoon may jàng mooy fekk saa mag ja di sang sëriñ la Coro mbakke teel a topp lool Seexul Xadim ngir boole gu leen seen waajur boole woon. digganteem ak sëriñ Tuubaa nag diggante bu teel la ndax du ginnaaw sëñ Mor waaye ci nekkuk sëñ Mor ni ko sëñ Thierno Bousso daan nettale sëñ Mor Anta Sali moo ko dénk sëriñ bi daam bis muy waxtaan ak moom neena na sëñ Balla ñëw mu jël loxoom teg ko ci loxo sëriñ bi ni ko Ahmadou Balla mi dénk naa la ko kon foofa la seen tàmbali ànd tàmbalee kon léppam daal sëriñ bi sës gi mu sës ci sëñ bi dafay mel ni rek joxoñu mag ñi rek la sëriñ bi doon wane foofu mooy nit ku ne mën naa am waxtandoo koy diisool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo fi ëpp xam-xam waaye teewut suñu borom ni ko wasaawirum fil am del diisoog ñu nga nekkoon kon sëñ bi amoon na ay waxtandoo sëñ Balla mii ci ay xejjam la bokkoon loolu mag ñi dund ci kër gu mag ñëpp xam nañ ci xej gi sëñ bi la bokkoon waaye nag sëñ bi dafa naan wax ni koy diisool na doon ko amub reer te réeréwut diineem nga xam ne moo lay wax ne la nangam mënta ñàkk ak nangam diisu ko fi defe yooyu daje woon na ci sëñ Balla eh, ginnaaw Mbàkke Kajoor ji niñ ko xame Mbàkke Bawol lépp mi ci roon kon Sëriñ Tuubaa ginnaaw Mbàkke Kajoor sañcub Daaru Salaam ginnaaw Daaru Salaam sañcub Touba lépp mi ngi ci ron euh, suñ euh, sëriñam boobu di magam jooju di Cheikh alhamdulilah taala anu doon ndawal sëriñ bi ci saayir ak ci baatin jébbal ko léppam doy sëriñ bi lool sëriñ bi doyloo ko mu doyloo sëriñ bi sëriñ bi doyloo ko sëñ Tuubaa nag ku mu seet ba doyloo la jikko yu ñu wax ci yow ci jikko ñu tedd mi ngi ci yow da dee su ko mën a lim yooyu yu sëñ bi doon dénkaane benn bu mu ci dénkaane wax na caag moom wala fekke na jataay ba ca mbooloo mam woowoon te mooy naa dem Touba te bu xat damm loolu bàyyi woon nañ ko xel lëggéey jumaa ji it bi ko sëñ bi dénkaane njaboot ga mu ci ñoom ca la bokk loolu lépp dafay dafay firndeel rek matuk taxawaayam ci wetuk sëñ bi ak yitteem ju kawe ba tax mu occupé place bi mu occupé ci wetu sëñ bi ndax sëñ tu waa doon ko naqare waxal ndax da jëmm joo xamante ne nii sooy wax ak moom boo wax ji guddee du la wuyu su wax ji naqaree deetu wax ak yow boo ko fenee moom génn na ci yow loolu nag ndimbalul yàlla dëgg akuk jagle mooy tax nga mën a féete ci yor ci mbiram loo xamante ne ni des na ko lijjanti ci waa ju baax ju fonk yoonu tër bismillahi noo dee te marsiya njàngum kàllaama nasaraan gi Cheikh Balla Thioro Mbacké jàngoon yite jumu ci amoon wuutewul woon ak namm koo liggéeyale sëriñ bi li koy firndeel moo di Cheikh Balla coro amoon taxawaay bu ràññeeku ci nekku sëriñ Touba ca gànnaar rawatina itam ci njaareem diir bi sëriñ bi nekk ci tukki géej gi nekkoon na fi am nekkoon na fi ndar ba jot faa jàng sax aslëf ci njàngum école ndekete yoo dencu sëriñ bi la nar a doon ngir lan ba xam waxtu wu ci nekk fu sëriñ bi toll xame itam ñi ko yor mu nekk ci seeni loxo lu ñu namm ci moom ndax dañ ni koo xam aw làkkam mucc ci ay pexeem kon dafa mel ni benn la woon ci jumtukaay yi sëñ Tuubaa ngir combat bi nga xamante ni ni moom la sëñ bi di mane am na wet gum ca war a taxawe te mooy jàppale sëriñ bi ci liggéey bi ci wetu xam-xam te sëñ bi itam li wax daa leer ujaahidu bil ulumi wa bit tuqa xam-xam la sëñ bi wax xam-xam nag xam-xam la tudd làkk yi koy waxee mën naa woote waaye xam-xam la tudd te kilifa gu baax sëriñ Cheikh Mbacke day wax ne xawma ma xam-xam bu yóbbu nit sawara jëf ju yóbbu nit sawara laa xam. wax nañ ci loolu nag lay waxtaan ak nit di ko wax moom nu muy lijjante ba ba ba sëriñ bi dellu si mbaa nu muy lijjantee ba fekki ko kooka ni ko nag làmmiñ wi ngeen wax dafa yaatuwut muy làmmiñ wolof wi. faw oh, lu mel ni njàng tubaab moom nga jàng ko pour nga génn euh, mën a dem fa mu ne ak ci barab yooyu nee nañ loolu bokk na ci li ko xéer ci mu jàpp ni kon war na koo jàng ndax euh, objectif boobu mu jot. waaye njàng ma itam doon njàng moom wut ay diplôme walla wut ab place wala toog ci bureau ndax sëñ Modou Habib moom borom Darou Mouhty bi ñu bëggee wut école fii te am ñu ci ànduloon def ni nanu jàngal sunu doom yi. ndax ëllëg nit dana topp ku mu wërta topp te njàng tubaab ba moom mooy tax kon bi sëriñ bi nekkee Gabon sëriñ Balla Coro ngi doon waajal ni làkk wi nga xamante ni bi day seen boroom ñoo yóbbu sëriñ bi euh, Gabon dinaa fexe ba ngéeju ci ba bu sëriñ bi ñëwee bis bu ci yittewoo woo ma wut maanaam du ñu wut ab interprète wax nañu itam bokk na ca sa ko sabab tam wax nañu bi nga xam ne sëriñ baa ngi ne ci wàccaay wi dafa am koo xam ne da koo gis wax na si ab tubaab la mu gis mu triste lool ma laaj ko kii lu ngeen bokk mu wax ko liñ bokk mu ne ko xanaa mu leen ko jàng tubaab ci ci ci askan wi mu ne ko axakay ah mu ne ko euh, mu ko déedéet mu ne ko bu amoon ko jàng tubaab décision yii ko génne mën ñoo kase décision mën man nañ koo neenal mu gis ne ba tey loolu bunt la wax nañ ni yooyu yan la saw bi nga xam ne moo tax mu mu mu mu mu mu jàng tubaab. loole nag moom la Serigne Balla Coro waajaloon. ngir lépp loo xamante ni Serigne Touba bëgg na ko liggéeylu ci lakku nasaraan bi mu liggéeyal ko ko ba kenn du mën a soppi waxit eh, Serigne bi ndax keroog bi nga xamante ni mi ngi ànd ak Cheikh Moustapha ngir ñu dem signé ji eh, eh, contrat juma ji bu déggul woon tubaab bu ñuy dem di dañuy yóbbaale ab interprète kon moom jàngoon na tubaab lan moo taxoon mu jàng tubaab mooy fas ci yéene liggéeyal Serigne Touba mi nga xamante ni nasaraan bi ñoo ko jëloon yóbbu ko diiru fanweeri ak ñett mu nekk ci seeni loxo Cheikh Balla Coro naa leen la taxoon may jàng mooy fekk saa mag ja di sama sang Cheikh Balla Coro naa leen Sëriñ Balla Coro Mbàkke aw turam dëppoo lool ak njaareem di Jurbel ba moo waral mu ñibbisi ci dëkk bi lépp mu lal ko ci ndigal lu ko sëriñ bi joxoon bi sëriñ bi ñëwee njaareem 1912 daf ko woolu mu jege ko lool sës ci moom rëkk àggoon na sax ba foofu nga xam ne fi la sëriñ bi nekkoon ci njaareem tudde woon ko albuqaatul mubaaraka ñu daan ko wax kër gu mag àtte ba ci loxoom la ko tegoon ci anam gu yéeme ndax ba mu ko koy jox daf ko layal ci turu jurbel ci boppam ndax daf ne boo bindee jurbel walbati walbati wat ko bàll coral lay jox baa ak laam lamara boo ko jëlee ak jiim ak raa mu jox la balla coro nga walbati ko mu jox la jurbel mu mel ni kon day mel ni denc suñu borom bu ko fi yàlla dencaloon la itam mu dox ca doxin wu am solo doxoon it diggante sëriñ bi ak ñoo ñi nga xam ne ñoo ko jëloon wax nañ ni loolu tax ko woon a jóg tax ko woon li ko taxaan a jóg moom mooy mun toog ci wetu sëriñ bi sëriñ bi di ko liggéeyloo surtout mu nekk interprète am ci digganteem ak tubaab bi ndax tubaab bi mu ñu saa ñëw si sëriñ bi ñooy indi seen interprète bopp xëy na daanañ jël ca biir ca dëkk ba leel ay interprète ñeneen waaye taxutoon sëriñ moom ñooñu ñu doy ko lool lool lool lool ndax daanaka ñëpp ñu tubaab bi waajal rek waaye moo tax mu taamu woon nag nitug boppam nitug boppam koo xam ne moom moo ko yaral boppam mu teg ko ci wetam ngir loolu mu yor ko ci yorin wu rafet yor ko ci ak taalibe yor ko ci jàppale sëñ bi ci njaboot gi yor ko ci dox diggante sëriñ bi ak nasaraan yi doon am médiateur te it yàlla defaloon ko mu doon ku teel a am barke nga xam ne sun boroom defaloon na ko wërsëg ak teel man boppam ak xam boppam bi sëriñ bi waree tabax jumaay Touba ji te demandé autorisation boo xamante ni sëriñ Mbacke Bousso moo ko bind l' administrateur de Thiès bi ñuy wax Tëlëri moom moo jëloon engagement ngir contra jumaay yi Touba moo doon l' administrateur u Thiès waaye sëriñ Touba dafa procuration jox ko sëriñ Modou Moustapha ab taawam ak sëriñ la Coro ñoom ñoo demoon cees kon euh, euh, contrat jumaay Touba ji ñoom ñoo ko signé ak tëlër yi ma nga xamante ni juróomi million ya ñu dajale woon moom la tegoon bët ba indi ca jalgati yamu ca jalgati doon jàmbaar joo xam ne taxawaayam man ñëpp rafetlu dañ ko ci saayir ak ci baatin ndax ñim jamonoonteeloon fii moom jamonoonte naa ak ñoom tey sama sang ba di sëñ Mor Mbaye Cissé daana ma yebal ci ñoom ngir may gëstu lenn ci mbiri mag ñi kon sëñ Balla Coro nii la nekk woon njaareem taxawu ñëpp ci saahir taxawu ñëpp itam ci baatin amut kenn xaar ma yàlla ci saahir ak ci baatin baax lool baax goo xam ne kenn mësu koo gis. Cheikh Balla Coro Mbàkke sibtu Balla ak maaram mooy rakki maam Moor Jaara ak maam Cheikh liggéeyub Serigne Balla Coro Mbàkke ràññeeku lool ci lu bëri ci ay dëkk yu mu sanc ngir di fa liggéeyal Serigne Touba. fexe ba yaatal liggéeyukaay yi te yaakaar ko ci suuf si fas jom. ku ko teel a dégg la ndax bi muy sanc jaaxal 1906 booba ci fanweeri at la toll boo xoolee nag fanweeri atam yooyee ak jamono ji ñu toll da gis ko dem ba am juróom-benn fukki at te kër sax du ko mën a taxawal waxuma laa ab dëkk waaye moom ba muy toll ci fanweer at la sañ ci dëkk bi ñuy wax jaaxal 1906 jaar-jaar yu yu bëree bari waaye ci gàttal daal bu ñëwee bu fii ci jaaxal gi ñëw jaaxal mi ngi fi ñëw ci atum 1906 ci la sañ ci la sañ di jaaxal nekk fi yor taalibe yi yor fi ay daara yu bëree bari yor fi taalibe yu bëree bari di leen yar di leen jàngal alquran ak xam bu liggéey jote mu liggéey loo leen ci tool yi te lépp wax naa la ko lépp lu mu liggéeyee fii ñu bay ko bu bu day jël lépp yot ko Sëriñ njaarim moom loolu la fi nekke woon ñu fi nekk ñëpp daal yar nañ leen ba defar fi ay mag yu nit yu bare bëri ñu bëree bëri ñoo xam ne ñu ngi fii ci biir dëkk bi ak ci tund wi li ko wër dellu ba ngaaj 1914 xaw a jege tuuti ñeen fukki at nga xam ne ci biir ñeen fukki atam defar na ci ci aw nit euh, lim boo xam ne mënu su ko takk ci kaw jaar tànk yi sëriñ bi jaaroon fépp fu mën a wéet ak lu mu ruq ruq ak lu mu sori sori bu fa mënee defar aw nit rek coono ba jaral na ko ko. dem teen tubaab da ko jox teen tubaab wax nañu bi ñuy génnee maam Cheikh di ko yóbbu Ségou moom dañ ko exilé woon moom kunkaane ca. Gabon ca ca ca Gambie waaye nag mu waxtaan ak benn xaritam mu falsifié décision ba ñu yóbbu ko kum-kum wax nañ ñi mu ngi ci wetu teen tubaab foofu ca la sanc dëkk mu jox teen tubaab léegi dafa ñaari at yoo xam ne moom ba histoire a jeex mu doog a ñibbisi fa ca la jóge sanc Mbacke Saloum sa réewuñ benn rek Mbacke Saloum moom def na fa at yu bëri ginnaaw bi ci la ko sëñ Mourou Moustapha euh, ñëwee ganna si ko fa mook sëñ Basiiru ñu sàkkuwaat mu ñëwaat njaareem booba fekk soxna soxnañ ko ci ay liggéey ndax mooy kilifa booba ci yoon bi daanaka moo fi kilifa ci njabootu sëriñ bi mu ñëwaat njaareem nekkaat fam diir ginnaaw bi ci 1939 nag euh, ci la doog a jóge dem dem dem dem dem dem ñëw sanc euh, mbar gi waaye ginnaaw Mbàkke Saalum maanaam delluwaat na euh, fële ndax 1928 rek la fa dem ay diggante 28 29 ginnaaw bi nag dellusiwaat na njaareem mm, ci ndigalul sëñ Moussa ak ci càkkutéefam ak sëñ Bachir def fab diir ginnaaw bi nag fa jóge xam ni li ma ko xelee li sëriñ bi moom li muy joxe dafa laaj fuñ ko war a nuñ ko war a téye ci la sanc waa dëkk bii nuy waxee yéen muy Mbar Mbàkke yi nu nekk tey nga xam ni moom bi mu koy sanc sax mag la daanaka wax ni dama ko sanc ngir njaboot gi rek. ci aw askanam muy njabootu sëñ Mor moo ci jëkk a jox sëñ bi junniy seng ca lañ tàppaat kër gi naka noonu itam mbayam dawu ci soxla dara te bokk ci. opérateur yi ëppoon mbay ci jamono yooyu ndax bari na ci ay bind yoo xamante ni wax nañ ne daana am ñetti junniy barigo ci gerte par an te bokkut ak dugub ja loola lépp dafay wane rek ni ku amoon jom ci nangoo liggéey te sëriñ bi moo leen waxoon ni leen na ngeen fonk mbayum gerte ak dugub di bay dugub ji di ko dunde di jaay gerte gi di ko fajo seeni soxla li leen taalibe jox na ngeen defal leen ko foo xam ne bu ëllëgee bu leen ne anamu ngeen ni leen mi ngi nii ci loolu la doon dund xerawlu tey ba way fi yaaram Cheikh Balla Coro Mbàkke sibtu Balla ak maaram mooy rakki maam Moor Jaara ak maam Cheikh ba cey rakkam ci doomi maam Moor Anta bi itam waxoon ko nag ni ko maag yow njaarim la ñuy bàyyi dem Touba moo tax fu mu fi mënoon di nekk ci réew mi bi mu demee ba mu wóor ko ni jege ji jot na la daal di jóge jaaxal bàyyi fay bagaasam lépp ñëw njaarim foofii la ko suñu fekk ak dogalam. wax nañ muy dem daa am benn jamono mu toog ni waxtu ma sama mag ji waxoon ni day bu bu ñëwee fu la fekk na nga jege si njaarim ndax njabootu sëñ bi moor maa ngi yow ci. bàyyi ko njëriñ dem àjjana waxtu woo soreetul ci la doog a delluwaati njëriñ euh, nekk fa ba ci ba ci mille euh, neuf cent ci la ci la ci la génn àdduna waaye muy nit ku am importance nit ku taarix mat a bàyyi bàyyi xel ci jàngale ay melokaanam jàngale ay jikkoom jàngale aw doxalinam ndax bu ñuy wax administration ci yoonu murit moo ko yar ci jamonoy sëñ bi moo tax fii jamono toll soxlawaat nañ ay xalaatam ca na mu administré woon ci jamonoy sëñ bi ba lépp di dox te lenn lu ci nekk dara du ko gàllankoor lu ne di jaar fa mu war a jaar laaj na ñu delluwaat gannaaw. daanaka ni jaboot sëñ bi mel ñëpp rek seeni euh, euh, euh, minute ay waxtu la seeni waxtu ay ay bis la seeni bis ay weer la seeni weer ay at la seeni weer ay génération la. Euh, mu jóge fi nag bàyyi fi njaboot gi ñii féete mbar ñii féete euh, jaaxal ñii féete mbakk salum ñii féete bangaañ ba foofu dem ba tey ak njabootama fa nekk radiyallaahu taala anhu muy dund goo ne moo xam dund gàtt la dund gu fees la goo xam ne mboolem étape bi ma tudd nag étape bu nekk rek daanaka xaw naa doy waxtaan. bokk na ci waxam jëm daa wax sax jotaay bi mu mos a toog ba lu fiy jógee day wax ne maa ngi leen di dénk yéen sama njaboot na ngeen jekki te noppi. te sax ci jaamu yàlla ak liggéey moom loolu la mas di di digle jekki te noppi te sax ci jaamu yàlla ak liggéey. jëfi Serigne Balla Thioro Mbacke ràññeeku ngir li mu doonoon ku mujj ci kaw suuf ci njabootug Maam Mor Anta Sali Mbacke doon rakki Serigne Touba ju làq ngërëmam te ay jëfam yaatu lool mën a jariñ ku ne ngir pas-pas ba ak dogu ga ak yittewoo lool ndam ci wetu Serigne Touba. loolu tax képp ku cosaanoo ci moom wala laxasaayu ba jëfi sëriñ Balla Coro feek jant baa ngi fenk ak a so mu doon luy leeral saw yoon di xàll wi sëriñ Tuuba xàlloon ngir jëmale jaam ñi ci siraatal mustaqim gannaaw sëriñ Balla Coro ak njabootam wuutu ko jàmbaare lool ci wéyale ndono li muy liggéeyal sëriñ Tuuba mooy rakki maam Moor Jaara ak maam Seex Anta ba cey rakkam ci doomi maam Moor Anta Seyxul Xadiim mu baax ma moo ko toqi maam noo ko jàngal